na ko loolu moom bu ñu ko joxee mu yóbbu leen OFNAC waaw ak càcc dëgg la dama ko nangu. ndax euh, PROMOGEM mi ngi si biir mooy euh, programme de modernisation et de gestion des marché bi nga te ni yaay Fatou moom moo ko euh, jiite ndax moom ni mu duggee tamit si si dossier bi am na loo xam ne nii daf la si gêné tuuti. non non non man gêné wu ma c'est vrai que moom moo waroon a am xelum ndax xam ci marché wala xam lu ñuy marché ci ñun la ko jàngee parce que dañ ko dénkoon kër de ville. bon c'est dommage que bëgguma ci wax ndax euh, bëgguma wax daal vraiment ci kii boobu en tout cas dama koy xool comme une personne bu ñu dénk mission euh, ma war ko wax li mu war a def ndax xam na ne lu mu bon bon maa ko ci ëpp xam-xam maa ko ndax lu mu ci xamal ko si néew maa ko ko wax du ñoom ñooy ñëw di ñu jàngal ñun ni ñuy gérer marché ñun xam nañ ni ñuy gérer marché suñ amee appui bu ñuy def mën nañu ñëw jàpp ci loolu kenn bañu ko parce que moom li mu yor moomu ko état la Euh, mais du ñu nangu aussi tamit compétence yoo xam ne loi moo ñu ko jox ñu naan ministre du commerce xam nga dafa am yoo xam ni boo koy wax sax dafa xaw a dangereux marché rek problème la marché marché rek ay problème la Sénégal comment tu peux ñu naan dañu créer benn direction benn agence bu war a yor marché yi ci Sénégal yëpp dindi compétence boobu ci collectivité. non day liggéey ak les collectivités. voilà buy liggéey collectivité locale bala moo def dara bala moo jéggi bala mu ne en ah, sax dafa war a ñëw ci collectivité locale yi wax ak ñoom bañ bokk yoon buñ bokkee yoon dana yomb. mais ndax waxtaan doxul woon seen diggante. waaw ah. même bu même waxtaan doxul mais bu waxtaan. doxee c'est ay correspondance ak. non non non même bu waxtaan doxee te ñun d'accorduñ moom dafa war a dem wuti leneen. seeti leneen. mais bu ñu dégloo ni mbir mi demee Modou Ndiaye Rahma mi nga xam ni moom moo tabax marché bi. Hmm. dafa ne dafa jël marché bi jébal ko état du Sénégal état du Sénégal à travers le gouvernement noo gouvernement sax moo gën a précis jël ko jébal ko euh, Yaay Fatou Diagne mi nga xam ni moom mooy promotion ngir mu yor wàllum càmm gi loolu nag. est-ce que amul ci droit xam ne ñii dañu dañu mel ni ko xamul. gis nga traitement loo xam ne nii ci nit la nekkoon di duggaat ci état agence judiciaire de l' état moo koy traité wala CCOD cest à état dafa am ay bànqaas ñu xëy rek ne lii naa ko jox diw dafa am ñun bu fekkoon tey gis nañ mu jaar ci yoon mooy agence judiciaire de l'état moom mooy avocat de l'état mooy conseil juridique de l'état moom la ñu war a jël ak waa CCOD ñi nga xam ne ñoo yor équipement ak yooyu ñooñ ñoo ko war a jël jël ñooñ ñoo war a def kayit ba pare dugal ko ci loxol état bu ñu ko dugalee ci loxo état ba pare mairie rek moo am compétence ci loolu beneen structure état amu ci compétence beneen structure état bu ñëw re da ñëw pour jàppale mairie voilà mais est nekkul bataille politique. moom moo xëy na ñoom bataille mën am sa boo. waaw xëy na ñoom xëy na ñoom ci bataille politique la mais ñun nekkuñ ci bataille politique ñoom ñoo nekk yow xam nga bataille bi mooy lan mooy doomu aadama euh, yow président de la république ñëw na fa ne la euh, seen ñàkk ànd moo tax ngeen perte yow yaa ko wax waaye léegi nag ñi gañe yow da nga war a ñëw jébbalu ci ñoom wala nga ñëw ménager leen pour ñu mën la jàppale. mais bu fekkee yow da nga ne ok naa ko yàqal pour mu yàqatu est ce que yéene nga dara Kaolack te loolu moo leen indil problème yu mel nii du ci man lañ njëkkee bu njëkk euh, euh, man yaakaar amu benn problème yaakaar naa ba ma kii ak moom ba léegi jàmm lañ am mbir mi wax nañ ci téléphone waxaan nañ ci waxaan nañ ci. su fekkee ñoom ñoo ko bëgg utiliser balay bataille politique seen affaire la ñoom du sama affaire man li ma yoon may danaa ci dox te pas de yoon may maanaam ba fan la mi war a dem. ndax da nga fas yéene taxaw. ngir lépp loo xam ne ni jumtukaay la boo am si wàllum yoon ngir fexe ñu bañ a tijji marché bi si condition yi. déedéet mënuñ ko tijji sax loolu daal loolu daal Kaolack ñun ñooy maire voilà lu fa waay def te mu nekk suñ compétence te ànduñ ca lu taxaw loolu rek mooy am solo. mais ndax yaa ngi sóoraale euh, jaaykat yi nga xam te ni amaana am na si ñoo xam ne nii euh, Promogem ñëw na euh, am lu mu leen proposé. si ay financement yoo xam ne ni après. yooyu yëpp dama ne la yooyu yëpp ay dama ne la xoolal dama ne la yooyu yëpp ay tappale la. li ñuy wax lépp kaay ñu tijji du dañ ne woon dañuy tijji nga dem fa pareegul pareegul boo tabaxee dara ba pare évaluer da nga koy évaluer boo koy jox état da nga koy évaluer buñ ko jaayee commerçant yi tamit jaayuñ leen lu ñu moom. te man tamit loolu mooy sama première si suis le premier magistrat de la ville soo di dikkee di jaay kenn loo xam ne wóor na ne moomagu ko waru ko jaay wala jaarale ko ci yoon alalu état du du lu ñu yomba jaay alalu état yombul sa à dire da jàpp ne nit ñi dañoo nekk seen i poste wala mais xamuñ li ñuy def alalu état neexut a gaaw a jënd neexut a gaaw a jaay dafa am yoon yoon woowu nag ñu ci jaaree rek. dana ci cœur de ville bu Kaolack. Hmm. mu mel ni foofu tam am ngeen fa contentieux Euh, fii nitam marché bu Medina Baye aussi est-ce que nekkul ne fayantoo moo nekk si ginnaaw. non non du fayantoo ay bloqué ne ma fii na bàyyi ma bloqué xam nga mënul nekk fayantoo parce que dañuy bokkul cœur de dama ko jaarale ci yoon kër de danga leen dégg ñuy wax xamuñ kër de ville man defuma tiitre bi ki sama tur état moo ko moom amaguma ci bàyyi sax dama ko demandé état bi bàyyi mais man li ma am CET la mooy construction exploitation transfert kooku bi ñu koy defar. dañuy jaar conseil des infrastructures kooku étudier affaire bi ba xam man naa nekk moom mooy moom mooy bind def rapport ne président de la république defal décret pour autoriser ministère de l'urbanisme ak finance ñu négocier un contrat parce que bu du woon loolu day def appel d'offre candidature mais boobu conseil des infrastructures sur des infrastructures de l'État loolu la def comme ni ñu def autoroute beeg yooyu bi ñu demee ba ba ba ba def loolu dañuy jël contrat bi ñu yóbbu ko DCMP DCMP xool xool rectifier yu discuter pendant jël na 6 mois bañ d'accord ñaari ministre signé ko ñu enregistré ko kooku dañuy nekk fi di wax rek mais xamuñ lu xew dafa bokkut ak lii. mais dafa bokk ak lii xam naa ne c'est-à-dire ñoom dañu dañuy dañuy yeewuwul encore. genre litige bu amee. amul litige cœur de ville amul benn litige. non non je ne parle pas. waaw litige bi nag litige bi mais Medina Baye pour ma jox la pour la position du gouverneur lan la si. xoolal man position gouverneur ak positeur Samba ak sama yoon ah, new. Ah, waa ah, xaaral non non le gouverneur. amu ci benn prérogative bu ko ci yoon may garantir la sécurité amu ci benn prérogative cest à dafa am loo xam ne compétence maire la gouverneur day xool ba xam li ñu teg yoon la wala yoon gouverneur wax na bu baax ne moom réception technique lay def te foofu sax dañu yaakaar ne ñoom tamit dañ fee dañ dañ faa xam réception technique du gouverneur moo koy def y a des services de l'État qui est habilité à réceptionner le bien de l'Allemagne malheureusement que gars yi daal ci dossier bi dama leen ci xeeb sax parce que xamul fuñ ci jëm. xamul waaye léegi nag nañ avancé dossier boobu daal jàll. non su ma su ma déggee day mel ni administration bi euh, Mour Ndiaye Rahma gouvernement bi Promogène dafa mel ni ñëpp lajj daal maanaam si si ni doxalee si mbir mi. Ah, waaw boo gisee noonu la li ma la wax rek analyser ko ma déet waaw man ah, ma laaj lépp tontu naaj léegi nag la finalité. léegi yow da yaay journaliste bi. da dem si yoon wala. non non ñun ci yoon xam nga li nga moom nekk ko sa kër. looy dem ci yoon naan naa ko téye may ki ki ko war a jël kay mooy dem ci yoon waaye yow kay yow kay doo dem ci yoon li nga téye ba noppi looy dem ci yoon. mais ndax marché marché maire am na droit xoolal. loi may na ko mu ne fii marché la woon suba mu ne mënatul nekk marché su ko conseil bi validé ki mën a décider ni fii marché la woon suba marché bi dañ ko war a toj waratul nekk marché loolu moom la loi bi wax. mais bu nekkee ne suuf si suuf état la. waa xam nga état état dafa jël transférer ay compétences encore. suufu état la ndax état euh, nu ñuy wax ganaar ak nenam mairie sax état ko moom waaye kuy état état du président de la république état état la. y a tout le temps c'est des dispositifs c'est des réglementations du benn nit mooy toog wax rek ne lool la man mii sax li may wax du man maay wax rek loolay am dafa am conseil municipal préfet approuvé que tout approuvé ko gis nga yooyu daal je pense que ñoom sax xam na ni li ñuy def mënut nekk marché rek problème la nga nekk fii di wax naan da ngay def affaire boo kon dans quelle mesure hmm. yaa ngi koy wax si seen compétence la bokk loolu kenn warante ko gestion marché yi mais bu ñu fi tegee ab euh, ab kuréel boo xam ne ni si dafay ñëw pour taxaw collectivité territoriale yi si wàllum gestion ak modernisation marché yi tamit euh, nan ngeen war a mun a def pour mun a liggéey ensemble sans que kenn si yéen ñaar am sentiment mais ñoom ñoo war a dem empiété ñoom ñoo war a dem nan lañ mën a doxale liggéey collectivité locale yi ba déggoo ak ñoom mais de définir ñun li ñu définir dañ ñu ngi ñu ngi mën ñoom nañ xool lan la ñu mën a apporter un peu plus loolu y' a de problème du man collectivité locale bu ne ak ni muy gisee boppam ni muy gisee am na ñoo xam ne nii mënuñu gérer danañ bëgg ku leen gérer. mais yow daal si disposition yi nga nekk nii mooy dans condition conditions là marché bi du tijji. non non non non marché bi day tijji. non dans ces conditions là. marché bi du tijji day tijji ak conditions yi nga xam ne nii moo légal.